kenn koo tudd ma Thiès kenn ku tudd dañuy romb di dem waa Poul bi nga fi xam nañu mango yi dara tudd ndax koo tudd maa te loolu dafay am dafay am impact bu négatif pour koom-koom et tout ça risque de faire de Thiès la banlieue de Dakar le chômage wax nañ ko sànq l'absence de politique de financement des projets la non-implication des acteurs territoriaux, ASI, groupement des familles, chambre de métiers, acteurs culturels, la non-implication des chefs religieux et coutumiers dans les politiques de développement local accentue la précarité des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Parlant des personnes âgées, may leen ma ma gërëm sant ñuy wax suma comité des aînés pour ngeen xam ne ne mag am na njëriñ tey organisation bi mag yi ñoo ko def ma si tudd tonton Benoît Dior ma si tudd Portrait Humain ma si tudd tonton Blaise tey ñoo def organisation tey ñoom la wax les personnes du troisième mais ce sont

waa Sambathé du ñoo weddi waa Ngenn du ñoo weddi dafa doy il faut ñu am ay solution pour inondation Thiès en évoquant le de Thiès je le laisse parfois dans un sentiment de nostalgie mais l'idée que l'avenir nous promet des opportunités plus grandes nous avons tous les atouts pour ça et ces atouts ce sont les ressources humaines Chers amis, je crois au dynamisme de la jeunesse Chers amis, je crois à l'énergie des femmes de Thiès. Je crois à l'expérience des plus âgés. Je crois au talent de nos artisans et aux corps professionnels. Chers amis, je crois à la créativité de nos acteurs culturels. Je crois à l'esprit bénévole de l'association, des mouvements associatifs et à la sagesse prière des chefs religieux et coutumiers et à l'implication des délégués de quartier fii Thiès bu waree dox nañuy impliqué délégué a quartier yi dañoo am wàll ci dugub bi te xam nañu